حمد وشكر وتقبل الخدم seetaan saa su ne bu waxtu wi jotee ci télé bi nga xam ne liggéeyalul ku dul Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, dañuy daal di ñëw nag ci yenn ci ëttu yéenekaay yi nga xam ne tey jii li ci gën a fës bokk na ci Vox Populi ñoom nag kàddi Waly Diouf Bodian la ñu daal di ubbee seen xët bu njëkk euh, ñoom nag lañ ko titré bokk nañ ki nga xam ne moo di Waly Bodian daal di nay révéler projet bi nga xam ne réservé nañ ko euh, ñi nga xam ne ñooy kujje gi nga xam ne dàkkantal leen ni dañoo nekk ay milliardaires ndax moom jàpp na ci kàddoom mun ñoo gérer dëkk boo xam ni day am ay opposants yoo xam ne ay milliardaires la ñu doon lan la ci jublu ñoo ñee dañ leen a war a tëjëm déet ah, loole nag di ay yu kàddu Waly Diouf Bodiang am ñu bëri ñoo xam ne ah, naqarlu nañ ko ndaxte nee nañ ah, du kàddu yoo xam ne cëram la ca suufam nag ñu ngi fay wane ni ki nga xam ne moo di Amadou Ba dellusiwaat na fii ci Ndakaaru mu ñuy xamal ni fii semaine bii di ñëw dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi may fàttali rek ni Amadou Ba moo jëloon deuxième place ci élection présidentielle euh, yi nga xam ni moo doon am am ci lu tolloog 35 euh, euh, pour cent euh, Sonko nag daanaka rek li nga xam ni wax na ko bokk na ci domaine public maritime boobu leen nee na leen ñu dakkal li nga xam ne mooy liggéey ba fii ak ñaari weer le temps que ñuy amal ab commission boo xam ne dina daal di saytu li nga xam ne rek mooy mbirum suuf soosee nan la deme ak bokk nan lañ ko jëlee ca beneen wet ga ñu ngi xamal ni jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllum njàngale mi moo ngay nag dalal xel syndicat yi ci li seen seenub ñaxtu l'indépendant daal di dikkaatak ñun ci jiyee ji nga xam ni am na fi diggante mars 2021 ak juin 2023 crime contre l'humanité noonu la ko l'indépendant daal di euh, tuddee waaye it moo ngay joxañ baaraamu tuuma de ki nga xam ni euh, moo fi nekkoon président de la république Macky Sall daanaka sax lim bi toll na ci 112 suspects noonu la ko daal di bindee daal ci lim tamit Marème fay Sall Amadou Sall Antoine Diome ak it ñeneen ñoo xam ni bokkoon nañ ci euh, gouvernement bi nga xam ni fi la ñu jugee ñoom it ñu ngi daal ci toftal ni ki nga xam ni mooy Juan Branco ba tey bàyyiwul ndax moo ngay wax waa CPI ñu daal di autosaisir su ko defee ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakken ci diir bi di mars 2021 jàpp 2023 ñu daal di leen di euh, teg loxo ca beneen wet ga l'indépendant di kaat ak ñun ci fukk ak ñeenti mesures yi nga xam ne premier ministre bi di Ousmane Sonko jël na ko ngir euh, wàccaayub euh, tabaski bi le peuple di kaat ak ñun ci kàddu yi nga xam ne Waly Diouf Bodian wax na ko ñoom it ñu ngi koy naqarlu ndaxte loolee du ay cëram muy rek mënuñoo gérer dëkk xam ni daanaka opposants yi ci nekk yépp ay milliardaires lañu faaw rek ñu daal di xool naka la ñuy def eh, ngir rek daal di téye seen loxo waaye koppar yi nga xam ne jël nañ ko ñu daal di koy fay ci ni mu gën a gaawee bu jaree tëj sax ñu daal leen di tëj ci li nga xam ni moo di eh, kaso bi loolee nag nekk ay kàddu yoo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne rafetlu wuñ ko révélation di kaat ak ci audit bi nga xam ni eh, premier ministre santaane ko santaane na ko ci domaine public yëpp daanaka rek dañ koy daal di euh, dakkal fi ak ñaari weer laataak nag ñuy daal di xool euh, ñooñee euh, nañu amee seen suuf si naka la demee am déet loolu it di bëgg-bëggu ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko BRT bi fan yëpp mu ngi doon daw test bi yàgg na lool tey jii nag ci ba ji ñenn ci sénégalais yi dinañ ko daal di jël xool ba xam rek li nga xam ne mooy wàllu dem bekk dikk bi dina daal di euh, yembadi 24 euh, heures di kaat ak ñun ci li nga xam ni mooy conseil interministériel bi nga xam ne amal nañ ko ci wàccaayu euh, tabaski bi Ousmane ko nag daal dina ciy jël ay mesures ngir rek daal di xool ana naka la ñuy def ba xar du manqué ci réew mi waaye it prix yi nga xam ne tamit dañ ko koy jaaye mu daal di jaar yoon ba tax na ci tabaski bi mu ngi xamal ni lu tollook huit cent dix muton la ñuy daal di soxla bu ko defee ñi nga xam ni ñoo war a mën a jënd xar daal di koy jënd Guy Marius Sagna ca wet ga ba tey moom nag mu ngi ci li nga xam ne rek mooy vacataires yi la nga xam ne yayoo nag ñoom ñu daal di leen koy jox te mu ngi ci daal di sàkku gouvernement bu Sénégal mu daal ci def euh, liggéeyam comme nam ko daan xeexee saa su ne réew mi dikkaat ak ñun ba tey ci dakkal gi nga xam ne Ousmane Sonko dakkal na ko domaine public maritime liggéey ba daal la daal di wax nañ ko daal di bàyyi le temps que def seen audit su ko defee lépp leer ci seenum nopp kenn ku ci nekk daal di delluwaat ci sëpp liggéey euh, li nga xam ne tamit nam nañ ko ci euh, tabaski bi conseil interministériel bi Ousmane Sonko daal na ci addu verdict ba tey dikkaat ñun ci tabaski 2024 conseil interministériel ak it fukk ak ñeent poñ yi nga xam ni Ousmane Sonko daal di na koy euh, santaane ngir rek tabaski bi daal di jaar yoon lii quotidien nag ab laaj la samp laaj bi mooy ana lan moo tax régime bi nga xam ni moo fi toog soxal lool wala bokk intéressé wu lool ci li nga xam ne moo ji littoral bi loolee nag la daal di lii quotidien daal di xamle euh, premier ministre bi di Ousmane Sonko daal nay santaane ki nga xam ne mooy waa Descos ñu arrêté li nga xam ne mooy euh, liggéey bi foofee ca domaine public euh, maritime bu région bu Dakar ana lan moo tax ñu yem foofule ana lan moo tax laalu ñu ci li nga xam ne mooy zone Mbour ba nga xam ne euh, président de la république demoon na fa loolee yépp tamit ab laaj la boo xam ne lii quotidien daal di ne ci àddu tribune di kaat ak ñun ci suñuy fàttali rek ki nga xam ni moo di président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ne woon na tey jii ci àllarba ji fukki fan ak juróom ci weeru mai njëgu dund gi dafa daal yokk ko génnee ci beneen boor nee na loolee kat mënatu la ne ndaxte Sénégal daanaka rek ñun li ñuy consommer yépp ca bitim réew lay jóge loole it wàññi ko dafay doon loo xam ne dafay metti faaw rek ñu mën a moomal suñu bopp suñu yëf su ko defee dund gi mën a yemb te loolee nag pour mu am faaw ñu xaar fii ak ñaari att pour loolee mën a sotti waaye ci fan yu néew dina indi ay solution jëm ci li nga xam ne rek mooy wàllum euh, dund gi le public dikkaat ak ñu ci bale bi nga xam ne moom la Diomaye Faye yoroon ca la campagne daa mel ni nag bale boobee mu ngi ci loxoy général euh, Martin Faye moom nag ni démb dafa daal di jël li nga xam ne rek mooy euh, lenga yi moom nag sécurité routière bi daal na ci indi euh, li nga xam ne moo di xalaatam waaye préoccupation yi nga xam ne am na ko faaw rek ñu daal di xoolaat nag la ñuy yembalee li nga xam ne mooy dem beeg dikk bi euh, jëlaat ay mesures yoo xam nag dana tax ñëpp daal ci tegu su ko defee accident yi nga xam ni mooy am fan yi dootul am loole nekk li nga xam ni moo di bëgg bëgg mbokk yi nag lii moo nekkoon li nga xam ni moom la yenn ci ay ëttu yi nikaay publié tey ji ci àllaba ji fukki fan ak ñeent ci weeru mai vingt 2024 mu nekkoon li nga xam ne moom la ëttu yéenekaay yi xëye woon tey yi ñu leen ko doon baaxee minni liman hul wujud wal xidam hamdun wa shukrun